attention Mame Kha mi ngi doon ci kaw boo romboon nañu Ramdan yee Mame Kha yee romboon nañu Mame Xaa ci victoire la jógee Mame Xaa ci victoire la jógee diggante ma Boy Fouta fii la wala l'arène nationale mu jàpp yéen ba ci kaw kër suuf moom Mame Xaa tey mi ngi jàkkaarloo kan Ramdan bu Dalifort Oliguen su ma ko andi moo ko andi Lion moo ànd moom kii di Ramdan bu Dalifort waaw waaw waaye kii di Mame Xaa gis naa ne Seydou Bari moo ko andi ndeysaan waaw waaw boole moo moom maa ngi ci kaw Ngiro ñoom ñoo bokk benn écurie Fils de Thione Waro aussi seen ko ci kaw attention attention ma door eh maam xa yee maam xa Ramdan yee attention Ramdan attention maam xa Ramdan Fatia Mame Kha Ramdan Fatia Mame Kha Ramdan Fatia Mame Kha Ramdan Fatia Mame Kha Ramdan Fatia Mame Kha Ramdan face à Mamkha Ramdan face à Mamkha huitième combat de la soirée huitième combat la soirée moom nga am loolu ci biir géew bi Ramdan face à Mamza bu ci jógee dem ci sos bu Gaza face à kii Zargounas numéro 2 booboy combat bu ci jógee dem ci grand combat bi Koutal Gueye Dany face à fils de Sadio waaw waaw pendant ce temps Mamza ak Ramdan ñoo jàkkaarloo ci ci biir géew bi waaw waaw Ramdan Faka moom xa attention arbitre arrêté na combat bi arrêté na combat bi war na leen ci digg géew bi waaw war na leen ci digg géew bi Ramdan tekki na kii sànni sëriñam am na lay ndeysaan bu daanoo sëñ bi dana ko dana dana ko ne yow yaa tekki sama jéere waaw naa assumé nag moom Ramdan il faut qu'il moom moo tekki jéere yi sànni waaw waaw Ramdan attention il percule attention maam xa eh dooral ma door génn attention gauche droite talonné waaw waaw eh eh Ramdan maam xa maam xa face Ramdan Ramdan face à Mamra waaw waaw Ramdan face à Mamra waaw waaw eh, eh eh eh eh may na ko tànk de la ilaha illallah eh Mamra lu muy def nii Mame Xalla lan lay def nii Mame Xalla lan lay def nii may na ko tànk léegi Mame Xalla li nga def mbaa wóor na ah li mu def mosuma koo gis ci làmb mbëtu maye tànk waaw waaw waaye nag li mu def ni ko defee moo garaaw moom Mame Xalla ni mu ko defee moo garaaw Ramdan face à Mamra attention Mamra mi ngi dóor Ramdan face à Mamra waaw waaw jëlal sos bu Kaasa ndeysaan mi ngi wàcc waaw waaw Ramdan face à Mamra combat bi métti na ah gaaw na gaaw na gaaw na gaaw na gaaw na mi bi gaaw na de ah. waaw mais mi bi gaaw na de cinq minutes déjà wala wala wala mbër bi moo blessé non mbër bi ci boppam moo blessé Ramdan moo blessé dafa war a dem ci médecin bi. waaw waaw waaw. entraîneur moom ka amul entraîneur ay waay entraîneur def leen am seen i mën a coacher seen i mbër ah qu'est-ce que Ramdan kenn toogalu ko sees moom ka kenn toogalu ko sees noonu la fa demee arbitre nee na leen bëre leen monsieur l'arbitre nee na leen bëre leen de combat bi avertissement avertissement pour euh, Ramdan avertissement aussi pour Mamka Poutine à ne ben avertissement un ben avertissement partout Ramdan j'ai un avertissement Mamka a un avertissement waouh ginnaaw Ramdan moo jàkkaarloo ñun combat bi yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na bëri jeexal combat bi mais nag bëri nañu xeex nañu Ramdan ak euh, kii di Mame Kha bëri nañu xeex nañu bëri nañu xeex nañu waaw waaw Ah, avertissement avertissement pour Mamra avertissement pour Ramdan des avertissements partout nee na leen round d'observation bi Moyag Ramdan ak euh, Mamra nee na leen bëre leen sama gars yi bëre leen balaa seen wéccet di jeex. waaw waaw. est-ce que combat bi du jeexee ci nul. est-ce que combat bi du nul. parce que des avertissements partout la ñu koy may tànk ñu koy may tànk ñu koy may tànk dafa téye ñaari loxo yi de moom ka doful de dafa téye ñaari loxo yi may ko tànk dafa téye ñaari loxo yi may ko tànk waaw waaw Ramdan face à qui Ramdan face à Mamkha attention mi ngi naam ci combat bi est naam ci combat bi est naam ci combat waaw waaw nee na leen bëri leen bëri leen bëri leen Ramdan bu Dalifort face à Mamkha écurie Pikine Wakhinane waaw waaw Ramdan Mamkha combat bi yàgg na lool yàgg na la àgg ci lool mais nag combat bu yàggee bu baax bu baax bu baax bu baax ah kon gis nga ndeysaan looloo ma dal ndeysaan combat trois secondes ndeysaan mu ngi ko laaj ak tamit deuxième combat bi deuxième combat bi deuxième combat bi deux secondes deux secondes J'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est pas ça. Philippe Nalo, Gao, d'accord, 5 minutes pour le combat de Gao, d'accord. Et combat, il est en train de na combat bi arrêté na combat bi arrêté na combat bi deuxième mi-temps la woon deuxième mi-temps la woon waaw waaw waaw waaw yàlla baax na yàlla am ñu ne ma bu ñu yàlla daw bàyyi rek yàlla daw bàyyi rek yàlla wu kenn dara yàlla wu kenn dara yàlla léppay baax léppay ñëw waaw waaw mi ngi noonu ba seen arbitre léegi mu siblewaat génnaat seen diggante mi ngi noonu génnaat na seen diggante Mame Kha face à qui face à Ramdan Ramdan face à Mame Kha combat bi demaat na Ramdan face à Mame Kha Ramdan face à Mamra combat bi demaat na combat bi yàgg na lool yàgg na lool Ramdan Mamra ba tey ndam demul ndam digul Ramdan face à Mamra ndam demul ndam digagul waaw waaw waaw sigil nag mooy hyperkit sigil mooy hyperkit Ramdan ay attention mi ngi koy dajale mam xam mi koy dajale attention eh non non rëcc na rëcc na ci waaw waaw da takk léegi tante la loolu moom maam xa waaye antuwul waaw waaw mi ngi dugal ay coup Ramdan face à Mamkha combat bi métti na combat bi yàgg na combat bi yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na lool Mamkha face à Ramdan hey hey hey hey hey attention takk ba attention attention ay waay nëbb leen li feeñ waaw waaw nëbb leen li feeñ waaw waaw waaw ah, voilà mi ngi noonu monsieur bi arrêté waat na combat bi avertissement fu mu ko teg fu mu ko teg avertissement bi pour lan la avertissement bi pour lan eh, bu combat bi jeexee moom xam nga am ndam combat bi jeexee moom xam nga am ndam moom xam nga moom ba tax moom xam moom avantage instant bi moom xam bu séenee combat bi nii bu jeexee mooy am ndam parce que kii di euh, Ramdan jël na trois avertissement instant bii nag kii di Ramdan euh, Ramdan moo war a initiative jeexal combat Ramdan moo war a initiative jeexal combat parce que temps bu jeexee Mame Kha mooy am ndam su temps bi jeexee Mame mooy am ndam kon Ramdan moo war fexe jeexal combat waaw waaw. Mame Khawa waaw temps bi jeex na temps bi jeex na temps bi wax leen ci temps bi temps bi jeex na temps bi jeex na Mame Kha Mame Kha Mame Kha vainqueur Mame Kha vainqueur de Ramdan Mame Kha vainqueur de Ramdan Mame Kha vainqueur de Ramdan temps bi jeex na Mame Kha bul wax ak arbitre bi Mame Kha bul wax ak bul wax ak arbitre bi Mame Kha bul wax ak arbitre bi waaw waaw Ramdan am na ndam ci kawam